ginnaaw tukkib nemeeku bu mu tàmbali ni ki alxames gi fii ci diwaanu kaw Kaolack euh, di dem ziare ñi nga xamante ni ñoo di ay kilifa yi bi te doore nag lii nga xamante ni moo di visitam yooyee ca kër ak euh, kii di xalif généralu Ñaseen yi di Cheikh yi Niass ginnaaw googe nag mu daal di jàll ak délégation moom ki jiite fondation alxaq sampani ay banqaasam fële ca diwaanu États-Unis di al imam Mouhamad Ndiaye gon wéyal gon foofe ca ngaan ca kër ki nga xamante ni moo di imaam Alioune Badara Ndao loolee nag ni ki alxames ajjuma ak tey gi la nag eh, mu daal di rek eh, dem ziare ji kii jiite daaru istiqaama di cheikh docteur Mouhamed Ahmad Lo ginnaaw wér-wéraan boobee nga xamante nag euh, amal na ko ni ki ak ajuma ci këru diine yu nekk ci réew mi imam Mouhamadou Ndiaye mi nga xamante ne moo jiite fondation alxaq sampane ay banqasam kon fële ci diwaanu États-Unis du ñu ne gulet rek mu tàmbalee def tukki nemmeeku bu mel nii ci réew mi ndax nag ni ki gaaw ñeenti fan ci weeru sam wi atub 2020 dal di woon na fay tamit amal lii di ay ziarat ci yenn ci këru diine yi nga xamante ni nekk nañu ci réewum Sénégal